lii di déclaration bu récente bi kii def euh, l'ancien ministre de l'état l'ancien ministre d'état état di euh, Habib Sy waye tamit ñu ñëwaat peut-être ci ci ci beneen point bo xamanteni mo koy boucler waye bala ñuy aborder point bobu ñu wax touti ci li nga xamanteni mom modi gis-gisu euh, Thérèse Faye Diouf en tant que politique par rapport ak kàddu yoy nga xamanteni Habib Sy génne nako Habib Sy bu mako déggo déggoo j'avoue que ma nangoon la ku am estime ci mom mais amna lu mu lu mu ci mom je je le dis en toute objectivité. Mhm. peut-être que ku may déglu mën nga xalaat ni que Félix da en tant que politique. Mhm. mais dafa am loo xamante Il y a la mayee sur combien de millions de Sénégalais mhm. nga toog nekkoon euh, ministre directeur de cabinet du président Wade. mu nekk une fonction ba nga xamante ne au sommet de l' état occupé nga il y' a des propos yoo xam ne waru koo parce que c' une violation de la constitution. ah bon oui.

bi mu koy wax waroon na mën a xalaat ni que rek réew mi dafa nekk réew moo xam ne réewum droit la ay charte ñoo fi nekk. mais tamit daf ko def à travers benn peut-être euh, taxaw seetlu boo xamante ni am na ko ci jafe-jafe yu bëri yu am ci réew mi tamit loolu moom mën nga ko concéder. yan jafe-jafe ñoo am ci réew mi. jafe-jafe yi bëri nañ jafe-jafe foncier yaa ngi nii jafe-jafe maanaam crise bi niñ ko géré ñu bëri ñu ngi wax ni Macky Sall day tâtonner ak et cetera et cetera loolu. c'est problématique. jafe-jafe lu mu am am ci réew mi. Mhm. li nga li nga wax ni.

peut-être qu'il n'est pas expliqué ou qu'il n'est pas connu de tous il peut l'expliquer aisément. mais moi li ma. nga jàpp ni daal mhm. il devait faire partie de ce ceux qui cultivent le renforcement de l'état de droit au Sénégal Je dama ne ko pas si je suis dit que woon jiitu ci ñi nga renforcer état de droit au Sénégal ñi nga xam ne ñoom pour respect constitution ak aussi ñi nga xam ne dañuy liggéey pour ñu gën a wormaal ñi nga xam ne institution yi ci réew mi mhm. président Macky Sall mandaam la am ñu ngi koy déroulé. d'accord di ko liggéeyal askan wi. d'accord guddi ak bëccëg ba fii may wax ak yow. Mhm. problème bu ñu teg ci réew mi rek. Mhm. amul lenn loo xam ne gëmm na ci bët bëtam problème mu ndengaleer baa ngi nii ba coow li bëree da cay jël ay responsabilités te ñëpp xam nañ ne Babacar Ngom sédiment. problème mu Ndingler bi ba léegi pour fàttali la euh, résoudre ñu problème bi ba léegi. waaw ay solution temporaire rek lañ ci amagum. mais même bu ñu ko résoudre. Mhm. mën naa jàpp ne des débuts de solution mu ngi am te président Macky Sall bi ma xam. Mhm. xam ban attachement la am au xam li ko agriculture ak baykat ak ñi nga xam ne dañoo néew doole mu tabax taxaw ne day xeex li nga xam moom mooy inégalité sociale. Mhm. man gisuma ne moom mooy jàpp waa Ndingler def leen naka sa doon wax ji nag mën na bëri. d'accord moom nag mën na toog ci palais bi di liggéeyal réew mi di wax loo xamante ne xëy na. d'accord ak Habib Sy wala muy wax ak keneen. waaye lu ñu bëgg a leeral ci opinion nationale bi ak mhm. internationale bi. Mhm. mooy Habib Sy bu dee dafa yàkkamti wala bu dee dafa am mbër mbëram ñu toogaat.